nee na nee na bor la tey buñ ko lebaloon bu muy fay doon na ko wéyale Caatu Bambey bañ yaa xam bawal Caatu Bambey Caatu Bambey looy yaa xam bawal looy def noonu xaw ma da ngay mboot xaw ma da ngay calmer ñorul ñorul ñorul ah yaa xam bawol ah waay defal ndànk waay xale bi defal ndànk waay wala oh la caatu Bambey yaa xam bawol ah oh, caa takk na la lan mooy am lan mooy am ah yaa xam baay li ngay oh yaa xam bawol daan na yaa yaa xam ah, Oh, oh, oh, oh